bu démb ci guddi mooy wax ñu démb ci guddi Mour Ndiaye Rahma am na ay xale yu ñëw kër Mariama Sarr di ko attaqué ñu ngi attirer attention opinion publique nationale ak internationale di attirer l'attention du président Macky Sall secrétaire général de notre parti que ne kii commencé def ajustement yii suñu jàppee ne kii responsable ba mën a yor dëkk jum ñu ngi koy avertir na ne ko def nañ ko benn yoon mu mu mu mu rëcc parce que kenn benn fan lañ fóon suñ ko defaatee. dootuñu ko defaatee suñ ko defaatee bu fa moor dam amee na xam ne moom mooy responsable te déjà lii rek ay prémices la yoo ne tegooguñ ci yoonu gagné élection yi ñu jëm ndax Kaolack benn responsable politique mënu ko gagné sans Mariama Sarr elle elle a la plus forte base moo fi ëpp base bu dëgër. ma ne 2014 Mariama Sarr mu nekk tête de liste ñu gañ élection locale 2016 ñu def référendum ñu gañ élection yi lan moo ci war a topp. donc lii la donc suñu benn logique politique bu tax a changer Mariama Sarr moo fi am base mooy def social mooy dem ci emploi des jeunes. moy def moy def infrastructure moy def une bonne gestion moo relever le budget de Kaolack aujourd'hui Kaolack actuellement mën nañu wax ne tali yi saa boo xëyee yaa ngi gis xale bi bare et j'en passe formation des jeunes j'en passe donc c'est un maire exemplaire je peux défier tous les maires de Kaolack et je peux défier tous les maires du Sénégal ku nekk taxaw wax sa bilan ñu taxaw wax suñu bilan ñu xool ndax Mariam Sarr dafa liggéey wala liggéeyul lii rek moo tax population Kaolack ne d'accord ci choix bi nañ ko changé asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh ñëpp taxaw na ñëpp taxaw Mariama la ñu bëgg te dëgg